Ahmed xalifa Niass nee dina yóbbu ci yoon Ousmane Sonko donte ni nag dégguñu tudd ko Fadilou Keita moo tudd turam fële ca grand jury bu RFM ñi daal xaaji wala bokk un milliard trois milliards euh, cinq cent la Ahmed Khalifa ak Samuel Sarr amel nguuru Sénégal ñu déglu si lëf ci Ahmed Khalifa Niass li mu dellu siwaat tey moom dafay fen man Ahmed Khalifa Niass à soixante dix huit ans depuis presque cinquante ans maa ngi wax ci rajo yi ak télévision yi ne musuma yoral benn doom du dara loo mos kenn du individu du banque du boutique du épicerie du de d'essence du farmasi du xarit du mbokk du àndandoo kooku principe la man xaw mosuma xam bureau CDC fan la féete xaw ma benn doom aadama CDC benn dërëm mosul dugg sama compte jógee CDC dafay fen te maa ngi koy défier au muy wër di fen nit ñi na génne dossier bi publier ko na génne sama signature mënu koo génne te bi biñ ko jox mënu koo yore dana ko daane banque boîte bi mu yore moo ëpp doole banque yëpp ci Sénégal te dana ko daane ba dara du fa ne parce que mënu ko dawalkatu cag-cag la ñu jox ko camion directeur u CDC normalement c'est un technicien bu fi nekkee di fenal nit ñi nag ndax man maay réclamer état bi lu ëpp cinq milliards ci ay oto yoo xam ne man maa ko fournir président muy vingt MW euh, BMW de luxe ak vingt Mercedes six cent keroog bi ñu koy réceptionné RTS moo def reportage président Ablaye Wade réceptionné ko bi Macky ñëwee teg ci tànkam ma wax ci ak Serigne Mansour borom daara ji mu téléphoné yaayam yaayam wax ko ne ko Macky moo leen di fen moom moo bëggul ñu fay ko parce que Macky dépendreul ci suñu rapport mën na fay Ahmed Khalifa Niass bu ko neexee mais moom moo moo ñu ne buñ ko fay donc ci sens boobu rek la ñuy mën a dem dégg nga nañu génne dossiers teg ko ci kaw dañuy fen aja mi ngi noonu jërëjëf euh, nee na dañuy maam maam moo ko sañ a wax moom moom yi Assane ginnaaw bi nga xam ne joxoon ñu ko ay baaraami tuuma nee na technicien war a nekk fële ca CDC technicien la war a doon ak nam ko waxee noonu tudd nañ nag euh, ci aw turam daal xaalis boo xam ne bari na trop ñetti milliards genn wàll. Hmm. waaw. waaw am na solo xam nga mbir mi moom dafa doon mbir moo xamante ni dafa laaj taxaw seetlu. Hmm. ndax euh, sunu baay moom moo ñu annoncé woon oto yi. oto yi oto yi mu fi indi. Hmm. moo ñu ko annoncé woon kon nag bu kiy ñëwaatee tuddaat oto yi yooyu wala bu tuddaat ab xaalis tey euh, sunu baay li wax dañuy mënut a indi sama signature. Hmm. na wane signature wala na génn dossier bi publier ko ma xam ba xam lan lan lay wax. Hmm. ndax ne ni sunu bàyyi xamagut li muy wax dana rek yoreel na yoreel na ko léegi nan la ko yoreel fi mu ne nii jaaxal na ko moo tax mu bëgg mu publier ko mu man koo xool ba xam nan la demee pour man see indi leeral nit ñi. d'accord oto yi nga wax noonu lu mu demee hmm? oto yi. non oto xam ma ndax oto yi xaj na moom si ni ñu waxee. xaj na dafa demoon ñu jox ko ko si tuuru Sénégal xaj na. ñu ñu jox ko ko moom. ci turu Sénégal mu indi ko jox ko. fan la demoon jox ko ko. xam nga tey ji yow boo boo boo am na noonu taxawaay boo doon amee lu xam nga lu deme ni Karim Wade xam nga am na OCI bu mu fi doon organisé. waaw nga yooyu am na ay réew yu ci jàpp nañ sa jàppee ay affaire yooyu noonu xam nga am na yoo xam ne mën nañ ko jaarale ñëw nitu diine nga jaarale ko sa tur pour nga indi ko. jox la oto yi oto yi pour. pour nga indi ko Sénégal. waa oto yi lu mu jote woon ak OCI bi oto yi bu fekkoon moo ko moom bu ñëwee président Macky Sall da ko war a fay par force. Mhm. nee na président Macky Sall daal lànk ni du ko fay mais oto yi lu mu jotee ko OCI laa wax. non xam nga xaj na après boo boo gënee xool boo gënee topp wax kii bi da nga xam mais président Macky Sall moom Ahmed Khalifa Niass bu indee lu noonu si ay oto yooyu. jox ko gouvernement bi ñu yoree ko milliards yi bañ toll noonu bañ ni ko ko jox ndax dañ koo jox jot avance 3 millions yi 3 milliards yooyu nga wax. moom Ahmed. waaw ndax dañ ko ko jox jot a avance si si njàmbaar gi mu indi yooyu téye. léegi nag waa ji ñëw gis ni oto yooyu du oto yu ñuy jaay du yu ñu war a amaas dërëm te gis na ni amaas nañ si dërëm dërëm boobu ñu si amaas mu na ñëwaat ndax dërëmu Sénégal la. Mhm. léegi nag kii nag bu boobaa xaj na xamut fu mu demee ñu jox ko mu signé ak yooyu. Mhm. xaj na nañ ko ko joxee yooyu amu ci moo tax mu mënut a génne sama signature te bu dee loola na ko publier ma xool ñu xool Sénégal yi xool. Mhm. ba xam lan la te kii du ko publier. mais jàpp nga ni Fadilou en tant que agent wu état. dina jékki-jékki rek wax noonu. ci man non Fadilou moom wax dëgg yàlla gëm naa ko. gëm nga ndax gone la yàgg na faa liggéeyee kon nag bu gisee ay dossiers càmbar dossiers yi xool ko moom si këyit yi lay sukkandiku kayit yi nag mën naa doon njuum ñaar la tudd sax ñoo xam ne ku ci nekk doo ko ndaw jur léegi kayit yi naa mën naa mën na mën na ko kii ko bindoon mën na see juumte wala nangam waaye li mu wax daa moom ay kayit la fa fekk mhm. kayit yam fa fekk xool na ko ba gis la sa nekk mu wax ko gis ci ay turu te kayit bi mu génnee wax na ne ko loolu kat nangam nangam problème boobu sëñ Mansour woowoon naa ko dafa nangam sëñ Mansour man sëñ Mansour si borom daara Ahmed woowoon na ko. waaw ah àgg na foofu yëpp. yàgg na lii problème bi maam mel na lu jamono jamonoy laay Wade ba Abdou ju Macky sàll ak yeneen ak yeneen. Mhm. xaj na moo tax léegi nag moo tax sooy bi ma naan ñi nga xamante ni doon nañ ànd président Macky Sall. Mhm. nekkoon si yu mel nii yoo xamante ni xaj na dara dina si génn ñu lijjanti koog yooyu ba fi laataa président Macky Sall ñu jógee li ñu war na leeral lépp. d'accord ba mu leeroon nga xam ne keneen ku ñëw day fekk lii leer na. Mhm. mais nag bu fekkee ni ku demee ni président Macky Sall wootee rek ñun ah baal noonu. boo hmm. bàyyee noonu këyit yi dañu la ko war a jox nga xotti ko si digg bi. xotti waaw. waaw bàyyi noonu ñu. est-ce que état noonu lay doxee Assane état ko roof ko si kii bi loolu loolu du bàyyi noonu keneen ku ñëw da koy roccewaat xool man du ko neexee da koy toppaat. mais trace état du yem ci benn bërëb de. day ah, day bari de daa waroon di leer nañ. d'accord mhm. Sonko mi mu ci boole waa lu ci yoonam. waaw affaire yi Sonko moom fu mu ne nii boo dee bu dee lu jëm si gouvernement bi far force da nga ko see war a boole. déet mais président kay la war a wax kon dinaa porter plainte kon euh, kii ak président la war a wax. mais Sonko lu ci yoon. mais Jomaay xaritam la Jomaay mu du ko mais Jomaay xaritam la doomam la na plainte Sonko rek ba xam ak ak ak ak Falilou Kayta. waaw fan la waan ne di mujjee ki bëtam. mais rek bu ko yoon mayee moom bu fekkee yoon mayee na mu publier ko. na ko Falilou publier ñun ñëpp ñu gisandoo ko. d'accord. Mhm. kon boog nañ ko bàyyi nañ bàyyi jàmbur moom moom yi nga xam ni ku yàlla baaxal la teral ko te ku euh, maanaam yéwén la ndax moo daan faral di wax ni ku may may boo amee jabet demal nga xooli ko boo amee tension demal nga xooli ko ndax mën naa laa may nga crise macha allah tàlli na lool suñu bàyyi jooju yi moom Ahmed Khalifa Niass alaaji hmm. lii de la ñu teg ci deram waaye tegaale ko ci deru Samuel saar nee na nag day porter plainte ñaar muy premier ministre ak fa <laughs> waaw waroon nga ñoo wan kenn ku mu mës a may mu crise wala euh, parce que pour ñu mën a xam. noonu waykat bi la ko waxoon ndeysaan gaañu na léegi yàlla na ko yàlla yërëm kii euh, silmaxa ba. <laughs> Ablaye Mbaye Ablaye Mbaye ndeysaan mooy ba mu nee ko seet si ma. yàlla te man ku ma may. bala ngaa ñëw xoolal sa kii. yàlla man ku ma may nga. Mhm. Mm, tabarkàlla daa yéwén rek. waaw xam nga Sénégal parensaay gars yi. Mhm. ñooy tooñ. ñooy tooñ. waaw parce Euh, li tax ñuy tooñ hmm. maanaam fadilu bu waxee euh, fadilu waxut ku wax waaw këyit yi ñoo wax fadilu dafa ñëw rek wax li këyit yi wax hmm. xam nga ñëw wax li këyit yi wax bokkut ak ay waxi fadilu parce que fadilu kayta defe naa ni euh, respecté na Ahmed xalifa ba du taxaw waxal ko lu mu gisut fenn donc bu demee ba wax rek dafa am ay këyit yu mu gis yoo xamante ni bi moo wax parce que Fadilu yàgg na fa mhm. te mësta wax lii mhm. kon boobu amutoon accès mhm. ci yenn dossiers yi bi mu amee ci accès ci yenn dossiers yi nag ci la génne dossiers yi wax li nga xamante ni bii moo nekk ci trois mu génne ko moom wax ko ci pénc bi kon donc Euh, bu ñu nee fadilu Keita de. Mhm. Euh, kii na dañoo war a wax rapport ya nga xamante ni moom la Fadilou wax. parce que dafa am ñoo xamante ni bi ñoom ñoo def seen i gëstu def seen i rapport ñëw indi ko. moom mhm. lu du ruy mhm. moom laa lay faral di wax ne la euh, boo gisee tey journaliste. daal day ñëw wax li nga xamante ni bi moom la wax liir presse. gars yi ne journaliste bi dégg ngeen ko li mu wax. du journaliste ba bu ca yokkut ay waxam. du journaliste ba waaye journal ba moo wax wax ja. bu ñuy yóbbu ci yoon. ka bind. lañu war a wax lañ war a waxal. mais ko wax daa jotee waaye ka wax waruñu ko donc kon Fadilou. dafa wax. lu mu gis dafa génne li nga xamante ni mooy li nekk ci rapport yi moom la wax du dëgg. Ahmed nag bi mu ñëwee. Euh, tontu na mais ni mu tontoo moom tontuwut kayit ya maanaam nit ki la tontu euh, xas ko mhm. ne ab sëfërub cag-cag la liñ ko jox dana ko daaneel mhm. ndax lii ak lii ak lii ak lii waaw danaa ko loolu daal di dal ci kaw Sonko mhm. dal ci kaw Sonko bi nag peut-être yow yaay gis ni dafa dal ci kaw Sonko waaye man dama jàpp ni boole la Sonko wax ci la Sonko wax ci waaw Sonko waxal ci lii. Oh. waaw loolu moom lay firi quoi xam nga beneen saa yi <laughs> danañ tudd nit. te fekk ne pour mu wax ci mbir yi la. Sonko yorul yoon bi. waaw mais mooy wax ci rek. balaa muy dem fenn wax na ko bu ma toogee mais Sonko <laughs> yaa ngi dégg <laughs> loolu moom xam naa di li gars yi dañ laaj ojo ba wala kii comme moom ko <laughs> bu audio ba ñëwee rek amul bu ma toogee <laughs> bu audio ba ñëwee wala mbind ma rek amul problème mhm. mais en tout cas daal li am solo mooy euh, li nga xamante ne bi daal mooy yëf yi mais alaaj ñaar la tudd te ñu tudd waaw duñ ay n'importe Samuel ak euh, Ahmed lañ tudd mhm. ñoom lañ tudd te et puis wax am nañ ci ay kii te jàpp ma wax yi dina tax yëf yi taxaw hmm. parce que yëf yi moom dana yegg ba fa mu war a yeggee maanaam dana leer ndax amet moo am dëgg bu amee dëgg it eh, bi fay ko xaalisam su fekkente ne bi tamit moom moo amee réew mi tamit eh, fay réew mi rek. mu fay réew ah, mu fay réew rek moo mën a ne. waaw amet de bu dee bu ko réew mi ne fay ma moom bu dee ah. vingt milliards it moom amul problème boobu. waaw mais xam nga ak lu mu ci mën a doon daal yëf yi mi ngi ci penc mi te léegi nit ñi ñi ngi bàyyi xel mbir mi. Hmm. waaw parce que loolu mooy li nga xamante ni bii lu am solo la. Ah, Ahmed Alaaji Ahmed. toog na fii nee na yëf yaa ci penc bi. Ahmed moom toog na fii nee na moom amut ak baadoo affaire moom nee na président yi ñoo ko soxla. président yi ñoo ñoo ñoo am affaire ak moom. Ah. ñoo koy seet si ñoom lay seeti. Hmm. kooku daa am problème bu 3 milliards. non non baadoo la noo def am ak moom affaire ci àddina. àddina ni ko sunu borom tëggee. Euh, nii mu demee nii rek la war a demee. Hmm. waaw borom alal bi day soxla baadoola baadoola bi day soxla borom alal mais moom nee na président yee ko soxla euh, non non waaw mais ñëpp xam nga nit ñi ñoo soxla borom alal yi mais moom hmm. président yee ko soxla waaw ah, après euh, bu la président yi soxlaa boo paree yow di nga soxla gaay gaayam néew doole. mais dama bëgg wax ne 3 milliards fu mu ko fekk fa la koy bàyyi Ahmed Khalifa day morom 3 milliards. waaw non waxaguñ ñi amee nag xam nga <laughs> ba tey kii wooguñu ko. Ah. mais maanaam comme que mbir maa ngi ci penc mi sénégalais yaa ngi. non damaa gis ci commentaire am ñu naan paa bi leen paa bi. Hmm. amul problème mu 3 milliards. Ah, waaw ñooñu suñu toll noonu seen yoon. parce que ah. affaire baa ngi ci penc mi. Hmm. Euh, te daal ginnaaw mi ngi ci penc mi moom. Hmm. sénégalais yi dinañ suivre yëf yi xool seen xaalis fu mu toll waaw mm-hmm. waaw parce bu fekkee ne am na ay rapport yoo xamante ne bii wax na lii mm-hmm. léegi moom na indi ay këyit yu firndeel ne loolu amul rek waa léegi yow moom kañ fi mu toll nii bu fekkee ne yëf yi kañ moom da ko yóbbu ci yoon day gën a gaawal mbir yi rek waaye léegi moo tax man la yow léegi bu gaa yi dee wax yow nga xam ne góor gi paa bii ñuy waxal non man xamaluma ko dara xamoo ne paa bi borom alal la euh, trois milliards fu mu fekk fa la koy ah xaw ma ko de wax dëgg ah yàlla dara leeruma ci xaw ma lu ma wax nee na li tax affaire yi leer mooy na ko xam nga di wax ne am naa ay milliards ak am ko du benn mais na ko parce que bañ na ko ba moom petit palais la tuddee këram waaw mais palais xaw ma fan palais yow mën ngaa confirmer ne am na man hmm. moom ma ko wax dama yaakaar wax dëgg dama ne ndax yow mën ko man ni ma bëgg a confirmer ni nga ma bëgg a waaw laa mais moo ko waaw di wax nag man fi mu doon nii mën naa taxaw te am naa euh, xam ne euh, paa bi du wax lu amut hmm, waaw loolu ah, mooy yow kon kay àtte nga mbir mi man àtte ma de ginnaaw du wax lu amul kay déedéet yow déedéet yow da ngaa hmm, gëm naa paa bi li mu wax man li ma waxuma li ñu ko xal de mais dama ne 3 milliards fu ko fekk fa la koy bàyyi yow Ahmed Khalifa mën na ñëw may la fii deux milliards. Hmm. te du ko indil benn problème mënu ko moom loolu moom mënu ko. <laughs> dégg daa bëgg mu man ko. non non dix millions donc mënu ma ko. <laughs> koy tam-tamal ba gën koo jekk. <laughs> wallaahi. mënu maa may dix millions. mënu laa may dix millions. barke sëñ maam billaahi na laa may dix millions. billaahi mënu maa may dix millions. dix ko. Ahmed su la su la Ahmed Khalifa mayee dix millions. Hmm? su la ko mayee. dama ko doon may. amee ah, 10 millions mi ngi mel nga may sa doom 100 francs. ah waaw baax na na nga bàyyi 10 <laughs> millions kay. yow 10 millions. 10 <laughs> millions ab Sénégalais bu koy yëkkati di ko may nit noonu. baax na jërëjëf euh, euh, mi ngi noonu. Euh, ñu ngi koy nuyu bu baax <laughs> moom suñu bàyyi boobu Ahmed Khalifa Niass di ko ñaanal yàlla jàmm.